est-ce que la communication du gouvernement est-elle bonne boo gisee ma laaj le kawaral li kané. waral mooy que yi tout le temps ñu ngi frustré wu ñu ngi continuer di mer n'empêche que DER mu ngi fi ANPEJ mu ngi fi ah yu bëri nga xamné président tégon nako fi pour jeunesse bi mais dafa melni batay jeunesse bi gisunu sen bopp ci loolu nga xamné mom le suñu njiitu réew dal di def président li mu def ci jeunes yi en Afrique amul benn pays soo koy xool ci ay programme yuy créer ay emploi di def ay start-up di jàppale nit yi di lebal jeunes yi ñuy def seen seen seen soci fonds et cetera amul benn président bu ko def fi en Afrique et maa ngi lay jox défi boobu nga indil ma ko cependant les responsables de ces programmes ont mal communiqué ou ils ne communiquent, pas. Lors, ça n'incombe pas au président. Ça ne veut pas dire que le président n'a pas fait. Mais nous avons gorgorlu ba responsabilité yi ñu jox ñuy télé et radio yi ak c'est ça La communication c'est un manquement de même président de Fuldara. la faute à qui Ce n'est pas au président la faute est incombe à ceux-là

mais c'est des manquements qui incombent aux responsables de ces programmes quand un président change les wala c'est sa discussion il y a eu de grands manquements qui communiquaient les programmes du président de la de la République envers la jeunesse déplorer ces gens-là doivent communiquer sortir c'est des milliards que le président a mis sur la table pour les jeunes mais impact bobu su amul. wala nga xamné ne un un nombre amna ci parce que so xolé par exemple Fong FONGIP créé nañ plus de 70 euh, soixante dix emplois le FONGIP rien que le FONGIP. Euh, nga xol ci ay ANPEJ et cetera. mais loolu est-ce que nekul ci seni euh, seni manam ñi maanaam ngi jeunes yi nga xam ñoo nek bir APR ñom lañuy daldi euh, protéger couvrir couvrir ba ñu mëna am ci fond yoy même su nekkee ay jeunes yooyu du ñu ay sénégalais. Ah mais rek. Ah, mais bon na ñeneen ñi dem té yamul ci jeunes yoy yamul ci jeunes yoy c'est des programmes nationaux des programmes d'État té je pense que jeunes yi nga xamné amuñu ci. su fekkoon lolu amna na que que dañu yem ci APR rek. Mhm. jeunes yi xam nga kenn momul seen gemi commencé nañ ko déployer mhm. mais le problème. Nabou, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas tout ça. Le problème, c'est un problème de communication. là, laal ngeen ko ci mm-hmm. seen que mm-hmm. ñi ñi jox cër ñi nga xam ne jox nañ leen pour jeunes yi. Mm-hmm. bu mais c'est un privilège quand même. président Yakar, il ñëw ne la milliards. des milliers de milliards depuis 2012 jusqu'à présent dugg na ci jeunes yi. de Ken wahoko, Ken gisuko. mais ça c'est un scandale dafa doy <laughs> et c'est ça le problème là, c'est ça le problème de du président Macky mhm. Sall mhm. le problème du président Macky Sall il a mis des gens à des positions qui xam mhm. non su mérité wuñu ça c'est c'est <laughs> c'est c'est dire trop dañ koo mënul d'accord parce que si rek dañ une enveloppe demal nga distribuer ko nga toog distribuer ko la moitié de la population xamul li ngay distribuer xamuñu sax fan la ñuy dem pour am ko mais c'est pas ça et puis du jeune yëpp a jàng dañu war a sol seen daal dugg ci man du gis nga ma caaro ji de kaw bi ma fay dugg ay ruq laa dugg est-ce que deer dem na dugg ci ay ruq yooyu wala at